salaamaaleykum euh, mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci 2STV yi ñu ngi am mbégte bi dellu siwaat beneen yoon ci fi nga xam ne moo di bërëb bu tedd bërëb bu sell mooy Touba. Touba mi nga xam ne moom mooy dajale ay junni junni ay dizaine de junni boog je vais dire murit saay su événement yu mel nii amee waaye bii nag man sama sama sama sama dafa sama dafa affaire dafa dama sama sama njort def cee kawe ñu tàmbali ko ci jamono mbas dafa am waajoo xam ne dama ko gis moom moom day romb di joxe ay masque rek waaw kay waaw kay murit moom ñaari mag la takk moom waaw kay ni sëñ takk mask bi ne na ngeen takk masque yi donc am na ñoo xam ne ñoom ni ñuy Pastefoo ci masque yi loolu mooy li ees waaye li nga xam ne moom moo ko sabab te jiitu ko mooy en général bienvenue à Touba ci bés bi ñu jagleel xasida yi fii da ngay romb rek ñu tàllal la kaasub kafe am baraada boo xam ne euh, da nga ciy mën a ubbiku nga naan kafe avec euh, gaieté seen daayira bi mu ngi tudd lii axlu café gi la maam Issa waaw maam Issa Mbacké sana ñun ñu jógee Mbacké nag ñëw ni jàpp si si bis bi soxna si wooñu xam ne képp ku nekk si axlu kafe gi rek ak foo mën a nekk soxna si dalay lay woo ngeen nga ñëw taayoo bis bi. ndigalu sëñ bi mooy ñu takk masque yow jox takkal sa masque yow. nee na masque masque <laughs> da doon <laughs> waaw da doon ndékki ngeen baal ko ngeen baal ko da doon ndékki <laughs> maa ngi ko gis ak beñe bi xool ak jengeen yeeg jaañeen yi ñoom bu ñuy ndékki dañuy bàyyi masque yi fële mais macha allah xaaral ñu jël si café gi barkeelu balaa ñuy def grand ziar naa la. defal ko defal nan barkeelu ci kafe gi balaa nuy dem ah. ayca baax na baax na baax na baax na baax na jërë ngeen jëf sama gars jërë ngeen jëf. mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci 2STV yi ñu ngi leen di ziar. Euh, li ñu indi Touba tey du d'habitude sensibilisation contre loin de ça wute na ak lool salaam saar bu baax jëwriñ saar bu baax wuute na lool ak li ñu fi daan indi bésu xasida yàgg naa am ci yoonu murit bésu xasida yàgg naa am ci yoonu murit waaye bés bu ni mel li tax mu spécial dafa nekk mbir moo xam ne c'est très très spécial Bruno nga may nga may jërëjëf jërëjëf Diorin maa ngi tuub am ñuy joxe tàngal <laughs> murit ñooñu daa neex yéen sëñ bi nee na ngeen takk masque ngeen bañ sëñ bi jëfe joxe ndigal ngeen bañ ko jëfe yéen tamit dëgër ngeen bopp lool booy dongo yu bees yi alors je voulais dire jàngu xasida yàgg naa am ci yoonu murit journée xasida yàgg naa am ci yoonu yoonu murit yàgg naa am biir bitim réew yàgg naa am États-Unis mais bii li ko tax mu spécial mooy dañu nekk ci benn contexte bu assez exceptionnel bu tudd euh, Covid 19. ndax corona dafa dikk ci réew mi indaale ay tooxi doonaam mel na lu jatang réew mi maanaam mel na lu ko kidnappé mel na lu emprisonné réew mi. Serigne Mountakha dal ne bis bi jëkk ci weer wii buñ ci duggee dafay woo mbooleem jàngkatu xasida mbooleem jàngkatu euh, alxuraan ñu dikk fii ci tuuba ngir jàng ko bi mu wootee nag defe naa ni murit yëpp déggandoo nañu wooteem te ñëw wuy si bi gën a dal defe naa ñeneen ñëpp dégg nañu woote bi sëñ Mountakha woote loolu lañ leen bëgg a découvrir loo am nañ fukki caméra yu sampe ci fukki bërëb yoo xam ne saay bu leen soobee ñu jox leen en temps réel li nga xam ne moom moo di xasida yi en temps réel nee na ma baamu ne am nañ fukki caméra yu sampe ci fukki bërëb yoo xam ne tant bu leen soob ci yu mag yi mu ngi mel ne bii nekk ci diggante kër Serigne euh, Saliou ak Serigne Modou Moustapha booba tant bu leen soobee ngeen xam la fay xew ak nan fay jàngee xasida en temps réel am nañ fukki caméra ci fukki bërëb lépp ngir mën koo dund ak askan wi waaye ñi fi ñëw dafa am lu leen fi indi loola dinañ ko xam ma bàyyi leen ngeen dégluwaale xasida ñu ànd tey dox di xool lan moo am en réalité à siyaar naa la fa maa ngi siyaar bër maa ngi siyaar bër ah, ñu ñu ñu dem ci ci ci bërëb bi asalaamaaleykum on assiste fii duggukaayu góor ñi fii duggukaayu jigéen ji la soxna si da def fii du duggukaayu góor ñi duggukaayu jigéen ji la mais c'est boo dikkee boo yorul masque doo dugg ci biir jumaa ji te boo laalul gel hydroalcoolique doo dugg ci biir jumaa ji góor gi fii du duggukaayu jigéen ñi góor ñi duggukaayu jigéen <laughs> jigéen ñi ñoo jaar fii fii du pour góor laa laala laalaatal laalal zel rek grand yow sa loxo bi gëj naa laal zela ah. kii grand man ma waxee fi ma jógee ñëw ci njàng mi da nga weddi ko nga ñëw ci njàng mi lan moo la indi ah moo la indi foo jógee man sori sori naa lool fan nga jógee man Dakar laa jógee Touba nga jógee wala Dakar Dakar Dakar laa jógee ñëw ci njàng mi ngir sëñ Touba man nga jugee dakaar loolu lan moo ma ciy waar. xam nga man Burundi laa jugee. ah waaw kay. yaa ma gën a sori de yàlla na nu yàlla nangul ñun ñëpp dégg nga. jërëjëf jëwriñ kon euh, Bruno ñu dem. fii duggukaayu jigéen ñi la waaye l'organisation est vraie et réelle sur le terrain da ngay gis ne boo laalul gel hydroalcoolique doo dugg ci biir jumaa ji te it boo takkul sa masque doo dugg boo amul masque am nañu ay masque de rechange s'il vous plaît Eh, eh. il faut ngeen comprendre benn affaire aussi maa ngi tuub ci téléspectateurs yi léegi léegi dafa am ay dongo yoo xam ne ci daara ji lañ ne maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay ziar bu baax jori waaw kii mooy Birno waaw donc dafa am ñoo xam ne ay dongo lañ ci daara ji lañ nekk li ñuy gis ñaare ñenn ñi ñu xam xàmmee ci télé bariwul moo tax bu ñu amee opportunité boobu rek dañ koy saisir à 100 pour cent maanaam dañuy dikk ci gannaaw caméra bi di ko gérer. maa ngi lay ziar. donc plus on s'éloigne de la mosquée ngay gis ci benn tente boo xam ne dañu ko def exprès pour euh, lii ngay seen tente la boo xam ne dañ ko def pour jàng xasida tant la pour jàng xasida dañuy dem xool ci biir comment ça se passe en réalité booy dooleen leen avancé ah <laughs> waaw ma ñëw ma ñëw ma ñëw maa ngi ñëw jëndal ci jëndal ci tigé tigé waaw eh, man dama leen a bàyyi dama leen a bàyyi yéen man maa leen bàyyi te xam li tax ma baleen yéen ak fi ma jaar ak yéen non banaa leen dama nekk direct mënu ma wax lépp Dóoru mi ngi leen di siyaar da ngeen def ak coono mënees nañoo yegg yër mbir yi bisimilah voilà en quelque sorte un prototype ci li Serigne Mountakha santaane guddut rëyut yaatuwut dafa wax ab mbooloo ne fu ngeen bàyyi ko na ngeen ñëw ngeen jàng xasida tuubal yàlla dellu ci moom nit ñi bàyyi ko fu nekk ci àdduna bi nit ñi bàyyi ko fu nekk ci biir réew mi ñëw fii ci tuubaa ngir tuubal yàlla lottulu ci kanamam toroxlu lii moo am Touba en réalité am na nag ñoo xam ne folklore daf leen intéressé am na ñoo xam ne dañuy jaay am na ñoo xam ne dañuy ñëw pour visite si am na ñoo xam ne dañ koy am am occasion am kuy ñëw Touba nga ne xaaral ma dem waaye fii kàddu gi benn la jàngum xasida kese la kaay kaay Bruno xoola dafa am li ngay dégg ci baaf li loolu la ñuy wax kuréel bu mag bi ñoom ñoo koy organiser dégg ayca nit ñi dañ koy respecté sàppe yi dañ koy respecté benn par benn lii moo am en réalité biir tuuba tant yu mel nii nag am na ci lu war tolloog ñaar fukk day def ñaari koñ maanaam li ñuy wax euh, loo maanaam loo bi fii la tàmbalee loo bi fii la yem mën na dem ba ñaar ba ñetti loo